affaire yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy gis ci sànc bi ci ay doxalinam te neexul ñu ñu bëggoon loolu daal di jeex mu respecté ouvrier bi bañ a jël étranger bi di ko favoriser ci kaw ouvrier bi parce que mënoo jël ay étranger jëlee leen ci dëkk beneen indi leen ci benn dëkk ñu fekk fa ay ouvrier yow li ngay liggéey ñoom loolu la ñuy liggéey ni nga koy defee noonu lañ ko mën a defee alors que ñoom la gën a favoriser suñu kaw dem ba ubbi ñaari porte ci sànc bi porte bi ñii moo ci jaar ñii moo ci jaar lan moo ko waral. def na quatre jours ou cinq bi ñuy def dalee grève ba tey musul ñëw wala musul toog ak ñun pour xam suñu problème exactement lan la pour mu mën ci indi solution ñu doon ko ko sàkku waaye ba léegi nangaloo gutoon ñu ko. bu ñu dem ci combat dañuy bëgg dem ci ak doole mu gis tête yi ci gën a fës l'étanor mu pare pour l'essentiel leen mu une liste de vingtaine. suñu salaire yi day yéex da koy téye ba ay le vingt mu dog ñoo fay. te lim ñu fay matul dara suñ contrat yi baaxul. tant que gouvernement bi ñëwul wañaaru loxo waa ji nii te nekkul si dëgg ñun buñ nekkuloon si dëgg bàyyi nañ bu yàgg mais dañoo commencé sonn nag di taay ci loolu noonu incha allahu rabbi moom dinañ dem ak moom si yoon. contrat kenn xamul lan la. fii la contrat yi baaxul fii yem. contrat yi nañ ci chantier bi la yem. ñëpp salibate ñëpp Tëngéej lañ dëkk. mënuma d'accord ngay recruter ba tey ay nit ci sa entreprise ne amoo xaalis ay nit yi nga xam ne étran à l'étranger dinañ indi ci biir réew mi ba pare nga ne amoo xaalis pourquoi ngay recruter ñeneen te ma ci gën a métti day génne sénégalais di dugal di dugal étranger yóbbu la chômage technique sans droit du la fay ëpp na 100 ëpp na 150 jëm na ba 200 personnel bi bari na li ñu bëgg réellement mooy mu ñuy fay sunu salaire à temps mu respecte ñu bu tontu suñuy mbir ñu ngi interpeller kilifa yi nu mu gën a gaawee luñ ci bañul bañuñu ko ci parce que nit du jógee à l'étranger bu doon dañ ko tooñ mais tooñuñu ko suñu droit lañ nekk comme que suñu droit la ñu nekk dañuy dem ba jusqu'au bout te fu ñuy yem ak moom mooy cooki fin cooki fin bi mooy yoon lim ñu may ñu jël affaire bi ba jusqu'à le juge